alors Babacar tey euh, à l'Assemblée nationale euh, démarré nañu en tout cas le processus pour que député yi Euh, mën a euh, examiner et peut-être adopter euh, ay projet de loi yoo xam ne dafa dafa ñetti yenn yi c'est issu du du du dialogue national mu concernait l'éligibilité de xalifa Sall et de Karim Wade beneen bi concernait le pouvoir dévolu au président de la République pour dissoudre l'Assemblée nationale mu di article 87 mu mel ni Euh, dafa nar nekk projet de loi boo xam ne surtout l'article quatre-vingt-sept mën na euh, indiwaat de heures wala boog mën niwaat jiixi jaaxa euh, après ce bref consensus qu'on a eu et après la déclaration du du président de la République du juillet ban gis-gis nga am ci projet de loi boobu. je pense c'est difficile <laughs> wax consensus ci contexte bi ñu nekk actuellement ci biir réew mi. maintenant soo xoolee projet de loi yi nga xamante ni dugal nañ ko procédure d'urgence euh, day wane ni feebar bi nga xamante ni moo laal Sénégal di présidence li professeur euh, Abdoulaye Ly doon tuddee présidentialisme néocolonial hyper présidentialisme feebar boobu dafay wane ci procédure d'urgence bi nga xamante ni ak loi yi ñu dugal ak projet yi ñu dugal Euh, soo xoolee particulièrement ci kaawu Khalifa Sall ak xaali kaawu Karim Wade lan la wane day wane ni président de la république moom moo maîtriser institution yi di utiliser institution yi di instrumentaliser institution yi surtout la justice di éliminer ay adversaires politiques dal ci seen kaw su demee ba jamono fekk moom ci coobare bokkanam ci bakkanam mu bëgg leen dugalaat dans le jeu politique mu instrumentaliser waat les mêmes institutions pour fexe Karim Wade bokk pour Khalifa Sall bokk mais la loi euh, soxna Maymuna doit être impersonnelle et générale mën générale mënuñu ci ay cas particuliers mënuñu légiférer yóbbu assemblée nationale pour régler ay cas Karim Wade ay cas xalifa Sall pendant ce temps nga exclure du jeu politique quelqu'un comme Ousmane Sonko je pense que effort yi président de la république def pour stabiliser le pays en pensant que ne Khalifa Ababacar Sall ak Karim dañu revenir dans le jeu politique il dafa waroon a dem jusqu'au bout de sa logique jusqu'au bout de sa logique mooy nee na day bàyyi je salue cette décision man mu ci ñu koy ŋàññ ci décision bi il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de saluer la décision ah, du président de la ñu ñu rafetlu décision surtout que tu diriges une une, une ville majoritairement euh, habitée par de par des populations yuy wax wolof ay kajoor kajoor donc waxal wolof parce que ñëpp ñu ngi lay seetaan <laughs> donc man damay rafetlu euh, dogal bi président jël ni du bokk ci élection yi ni day respecter ñaari mandat yi euh, mais liñ koy laaj comme day dem mu organiser ay élections yoo xamante ni kàngam yi war a bokk yépp dañuy bokk Khalifa Ababacar Sall dafa war a bokk ñu nangul nañ ko lool Karim Wade dafa war a bokk ñu nañ ko lool mais mënoo teg un système aussi pour exclure ñeneen i kàngam. est-ce que ni nga waxee ne xalifa Sall dafa war a bokk Karim Wade dafa war a bokk est-ce que noonu ngay waxee catégoriquement que Ousmane Sonko dafa war a bokk. mais su ma waxoon catégoriquement Ousmane Sonko dafa war a bokk lan laay wax may mun a. may mën a ñaari façon politique ñoo dafa am ay politiciens yoo xam ne dañu am jikko charognard charognard moom mooy céeli euh, charognard céeli dañu dafa paris moom ci ñàkku jàmbur lay dunde walla métt day xaar occasion mu dunde ci am ñoo xam ne dañu am jikko gaynde wóolu seen bopp ñeme àll bi li ñuy dundee ñoom ñoo koy lekk ñun FDS les Guelwaar ñun jikko gaynde lañu ñoom suñu carrière politique dépendrul ci ma Samba bokk ci ma Demba bokk place bi may rêvé ci histoire Sénégal bëgg ko occuper bëgguma usurper place boobu soo bëggee nekk roi des arènes bul lijjanti ndax Modou Lo day bëre ndax Balla Gaye day bëre xam nga lu la war mooy entraînement ñime combat mbër moo dajal nga préparé jàkkaarloo.